Can I go on them? Moki Sénégal agence Wakilare, dikkati na ak ay xéwalam yéen jigéen ñi bëgg liggéey te amoo leen ko ak fu ngeen nekk biir Sénégal moo xam Kaolack nga dëkk Taten Séeréer Ngunjaan Kolda Fatik, Louga Saint-Louis Saloum Noto Pambal Babak, Etc. cetera agence wakilare tijjil na leen ay buntam pour utal leen liggéey te doo leen ci am benn coono yaa xam togg nga bëgg wala xale xam ndax da ngay wala da ngay chaque jour ak lu am jokkoo len gaaw ak la meilleure agence muy agence Wakilare au 77 554 68 55 ou le 78 160 51 ndax fa lañu yem déedéet am na ñoo xam ne soxla ñu len di jappalé seeni biir kër mo xam ku lay toggal nga bëgg wala ku lay ménacel mbaa ku lay say doom am nañu sax ay boy de maison ay gardien ak ay chauffeur am nañu ay malienne ak ay guinéenne agent Soakelaar yi mën na leen proposer ay jànq yu responsable te mature nga xam ne dañuy fanaan di féete wala ñuy wàcc chaque da nga soxla ku grand ménage ce kër agence Wakilaare moo ci gën a rax ci Dakar Thiès Saint-Louis Kaula, Kolda Mbour Tamba etc. Yo jokkoo leen ak au 77 554 68 55 wala le 78 160 51 Fait leen ma foofu man Samba l'homme de biir Thiès maa la ko wax. liggéey